السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكي نيو لين نيو دي لين زيار لين بالحق نيان بروم سبحانه وتعالى بولين جقر حديث تايب دفا عن ابن عباس رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به حديث بي عبد الله بن عباس ما كنت له mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne képp ku ngeen fekk mooy def la nit yonent yàlla luut ya doon def te mooy ak góor jigéen mu ne na ngeen rey ki koy def kañu koy def ñaar ñoo ñëpp charia di kon li ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal ne mooy képp koo xamante ni dafa nekk ci société di góor bu bàyyi jigéen dem ji jaxasoog góor wala jigéen ju bàyyi jigéen dem ji jaxas jigéen ju bàyyi góor dem ji jaxasoog jigéen ñooñu sharia dele leen raylu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo jàngale loola ndax ñoorow poson ci société yan nañu ci yàlla musal qul qawli hada wa astaghfirullah alazim li wa lakum wassalaamu alaykum wa rahmatullahi